tey nag ñu am ci mbégte bu yaa rek di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Ababacar Gassama nekk secrétaire wala coordonnateur régional bu Sédhiou CPGE moom la ñu war a am tey gan waxtaan ak moom ci li nga xam ni moom moo jëm ci émission gox bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci ni ngi nangulee invitation bi. merci monsieur Dramé maa maa ngi leen di fay. Mhm. Euh, ngi leen di nuyu di leen sant. Mhm. Euh, di leen gërëm bu baax di. nuyoo seen directeur bi euh, di nuyoo population Sénégal yëpp di nuyoo képp koo xam ne yaa ngi déglu euh, émission bi di beral nuyoo bu baax euh, sama militant ay militante ak képp koo xam ne yaa ngi ci Sénégal di nuyu sama benn xarit Abdou Baye Fall <laughs> mu ñu Delfor waaye. <laughs> Ah fële nga xam ni moo di ci assemblée nationale. léegi nag euh, li ni mel euh, ñu si bari nag indi nañ ci ay commentaire lan moo ci sa commentaire njëkk sama commentaire bu njëkk euh, li ma ci wax mooy maanaam niñ ko niñ ko defee bon rafetul mais loi bi man rafetul naa ko mhm. mais ñoom niñ ko niñ ko defee mhm. moo rafetul lan moo rafetul foofu. parce que balaa ngay indi dara il faut nga explique nga joxe explication askan yi ñu xam. Mhm. ci lan la ñuy dem. Euh, parce que tey man kenn du ma dugal ci loo xam ne xaw ma ko. Mhm. voilà balaa ñi koy indi ci assemblée. dañoo war a jël euh, population ñu toog leen expliquer leen lii ak lii ak lii lañu ñu war a def. Mhm. te gëm naa ne suñ ko defee lii mooy suñu suñu bénéfice lii lii la ci lii la ci njëriñ. mais ñoom jox ñu explication. bi opposition ak euh, gars yi commencé di wax. ñu mhm. bëgg a joxe nit ñi explication. Mhm. kenn du defee noonu. Mhm. du noonu parce que ñëpp xam nañu tey euh, li ñuy xeex mooy terrorisme. ñëpp xam nañu tey Sénégal sant nañ ci yàlla. touche bois. ñi euh, ñi am comme ay jàmbaar. ci ci ci ci ci frontières yi mhm. ci partout naw nañu leen adduna ñëpp ñëpp ñëpp la leen naw mhm. kon tey suñu demee est ngay wax ni nekkul ni da ngeen di nekk di naagu waaye xam nañ ni euh, terrorisme yi ñu ngi ci buntu yi presque yu bari ci diwaanu Afrique no mais euh, du question naagu dama ne terrorisme soo gisee ba léegi euh, ñëw ñu Sénégal te dugg ñu Sénégal dama ne mhm. mun naa ne suñu jàmbaar yi dañu leen naw ci fànn bu ne. Mm-hmm. te tamit du naagu <laughs> bu ñu naagu parce que ñoom heure bu ñu soxla heure bu ñu bëgg dañuy ñëw parce que euh, euh, euh, semaine bële passé lañu doon def formation ci ci ci ci affaire bi. Mm-hmm. ak benn shérif boo xam ne mm, Sénégal ñëpp ko xam loolu mooy liggéeyam mais tey suñu jëlee loi boobu ko indil population pour wax leen. Mm-hmm. ñëpp ko war a saluer mais ni ñu ko defee moo rafetul. Mhm. maanaam waxtaanee wuñ ko. waxtaanee ñu ko yow lan moo la ci déranger ci loi bi luñ ko waxtaanee wul. luñ ko waxtaanee wul moo déranger. Mhm. mais tey ku la ne kaay kaay kaay kaay ñu aar la. Mhm. nga bañ dugg ci tolof tolof. wala ñu baña la faagagal. kook jàmm la la soxla. mais balaa mu koy def tamit il faut que mu expliquer la lii ak lii. moo am mais ñeneen ñi tamit. Euh, comme ñu koy waxee ci population nañ ko arrêté parce que dañuy jaxase nit ñi. Mhm. man déglu naa ci benn <laughs> benn vidéo boo xam ne ma gis benn waay bu jóg mu ne loi bi dañ ko indil pour Jakarta man ku ne sa doom du nekk Jakarta man dañ lay tëj wala leneen ak leneen. maanaam leerut maanaam maanaam ñu luñ koy waxee noon tamit baaxul ci population. Mhm. parce que tey ñu lu ñu soxla mooy suñu kaaraange. Mhm. suñu kaaraange la ñu soxla. tey tey tey ku yëre suñu kaaraange mooy. Euh, mooy mooy mooy kii euh, mooy. Euh, état mooy sàmm suñu état moo mooy sàmm suñu kaaraange. Mhm. boobu su fekkee jóg na pour sàmm suñu kaaraange. Mhm. na ko expliquer nit ñi. Mhm. une fois wax la moi je ne pas à bokkuma ci. mais loi baax na pour mm. Sénégal parce que kaarange Sénégal waaw léegi yow lan ngay wax ci ñi nga xam ni ñoom nee nañ loi bi dañ ko indi ngir ku bëgg a marché euh, ku bëgg ñaxtu ngir ñu dal sa kaw loolu moo tax loi bi ñëw wala yow àndoo ak loolu gis nga Sénégal mm-hmm. euh, marche mu ngi suñu biir constitution mm-hmm. kenn mënu ko génnee mm-hmm. demande d'autorisation pour qui man musuma jóg di dem demander. mais li may wax. du demande sax yëglu la rek yëglu. Mhm. d' information. Mhm. la ñuy def. Mhm. mais maintenant ñiy jóg di di def lool. seen intérêt bopp man moom laa gis ñu loolu ñuy def. maanaam jarul tudd tuur. tey xam nga tey ku mu neex nga jóg wax lu la neex si réseaux sociaux. wala nga jóg di saaga. dafa am ñoo xam ne dañu ko jom. Mhm. man bi may bi may def politique am na ñu ko commencé woon ci man bëgg a dugg si réseaux sociaux di may saaga ma ne non permettre ma kenn saaga ma duma ma saaga kenn damay wax sama idée ngeen wax seen idée kenn ku ne su fekkee man am na ñi ma convaincre ñu ànd ak man. Mhm. su fekkee am ngeen ngeen convaincre ngeen ànd ñoom mais ñun en tant que. Euh, làkkat wala en tant que. leader leader. Mhm. du ma permettre kenn saaga ma parce que tey soo xoolee saaga yi am ci leader yi ci réseaux sociaux wala leneen c' est tro c' est trop mhm. ci réew jullit la ñu nekk. Mhm. nu nous sommes des africains dafa am aada bu ñu am. dafa am lu ñu yar. dafa am fu ñu war a teg suñu tànk. mais suñu bëgg a toppandoor maanaam ñi nekk ci kaw. États-Unis Europe wala feneen. dañuy lor suñu bopp amuñu jikko boobu depuis suñu maam yi mhm. ba ñëw ñun jamono bu ñu toll ni mhm. kan nga mus a dégg ñuy saagande lu dul suñu génération te ñun suñu génération bi ñoo war a defal xale yi mhm. ñoo xam ne ñii ñëw parce que xale yi suy fekkee dañoo gis ñun lu ñuy def dañuy foogee ne loolu moo baax te loolu baaxul te loolu baaxul te ndey jàmbur xeefoor surtout koo xam ne kilifal da ko war a jox cër. Mhm. je ne suis pas là pour défendre Macky Sall wala pour Ousmane Sonko wala pour keneen. Mhm. mais damay wax en tant que nous les jeunes. Mhm. nañu xool suñu comportement. nan la ñuy politiquer wala nan la ñuy waxee ak nit ñi. mais maintenant Sénégal lu waaye neex ngay def. ku ku mu neex nga jóg saaga ci nit ñi si réseaux sociaux wala wax la ne c'est pas bon. c'est pas man sama sama yaay bi may juree dam ko dam ko dam ko naw. dama dama dama dama dama bëgg. jox ko cër. dëgg nan la ñu war a def léegi ngir mën a dàq loolu euh, tey est-ce que tey comme ni nga ko waxee léegi ndaw ñi jotul itam ñu xoolaat seen doxalin ndax euh, comme ni nga ko waxee ci réseaux sociaux yi da ngay dugg rek ñu teg la foo xam ne bokkoo fa donc lan la ñu war a def état moo war a réguler loolu tey. bien sûr bien sûr dama la ne tey euh, état moo jiite réew. Mhm. lépp loo xam ne baaxul ci réew. da ko war a arrêté. Mhm. lépp loo xam ne dafa war a yee fitina. Mhm. da ko war a arrêté mais su fekkee da koy arrêté moom na ko moytu moom état. Mhm. ci naka. parce que tey doo ne nit ñi bàyyi leen lii nga koy def. fekkee. da nit ñi lii baaxul bu ko kenn def nañ ko gis yow nga def ko. suñ ko jisee yow nga def ko nga nekk ci ñeneen ñi dañu lay topp. parce que dañuy xam ne bii su ma ko defee. dootuma ko defaat. Mhm. demal ci côté sàcc. Mhm. ku sàcc dañu lay tëj. kan mooy jóg nga dem sàcc sàcc yaa ngi fii ba tey mais sàcce bu ñu jàpp dañu lay tëj du dëgg. Mhm. mais dañoo xam ne ñëpp xam nañ ni tey sàcc baaxul. ñëpp xam nañu rey nit baaxul. ñëpp xam nañu leneen baaxul mais pourquoi ñu koy def. loo xam ne dañ baaxul rek état da ci war a teg tànkam. wax nit ñi lii baaxul kenn du ko def na ko arrêté mhm. mais une fois li may wax mhm. en tant que nous mhm. les jeunes ñun ñu xam ne bëgg nañu ëllëg pour xale yi gëstu si ñun xooluñu dañ ko war a rafetal dañ ko war a rafetal comportement bu baax la ñu war a wane xale yi ñoo xam ne ñoo ñuy suivre soo xoolee dam ke dam ci ciy dugal manifestation bi passé ban ban ban ban ban ban mag moo fa de foofu ngay xool ban mag moo fa dee. ñëpp ay xale lañu. ñëpp ay xale lañu. Mhm. ñoo xam ne am ñu majeur mhm. ñu. ban mag moo fa dee. te mag yooyu ñoo nekk si réseaux sociaux di saaga mag yooyu ñoo nekk si réseaux sociaux di du xupp nit ñi du ci euh, du ci nguur du ci opposition kenn seen mbokk deewul. kon war nañ xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat en tant que. Mhm. nous les sénégalais nañu xoolaat bu baax. li ñuy doxal. ok Aboubacar euh, Ababacar Demba Gassama coordonnateur euh, CPJ euh, bu région bu Sédhiou moom la ñuy dalal ci émission gox bi niki tey alors ñu wax ci li nga xam ni moom moo jëm ci Covid 19 gis nañ ni cas yi mi ngay faral di yokk fan yi yëpp gis nañ ko mi ngay yokk ba ci sénégalais yi sax boo xoolee relâchement dëgg-dëgg lañ ci nemmeeku lan mooy si sa xalaat ci loolu. <laughs> gis nga ba tey. ci li ma jóge wax ni tey loolu moo am jusqu'à présent ci entre suñu suñu leader yi mhm. ngàlla nañu xool li ñuy def waa ñoom ñoo ko njëkk a commencé euh, su ma nee ñoom ñoo ko njëkk a commencé mhm. euh, mun naa am ma wax loo xam ne leeru ma mhm. mais li may wax mooy nañu xoolaat seen bopp bu baax parce que tey président Macky Sall moo taxaw. mu mhm. ne ñu l'heure est. grave grave. Mhm. ñu jógee ci foofu tëjuñu bi ñu tëjee nit ñi sonn nañu amatuñu lu ñuy am. Mhm. mu bàyyi bunt bi mais dañu ne bàyyi nañu lépp mais dafa am mesure de barrière boo xam ne loolu ngeen war a appliquer. su fekkee ñoom. mesure de barrière bu ñu jox nit ñi dañ ko war a appliquer gisuñ ko ci ñoom. Mhm. naan lay demee. laaj naa la ko. loolu mooy indi catastrophe bii am nii te. Mhm. vaccination bu ñu indi. Mhm. man barke ba laa def sama deuxième dose. xam nga damay gis en même temps tamit ci dugg ci réseaux sociaux ba tey damay jis ci réseaux sociaux ñu ne ku def vaccin dañuy teg fii doo dara du kii c'est faux. nañu bàyyi ñu balaa ñu ñëw ci vaccin bi tey hmm. naka la ñu war a def tey ngir euh, relâchement bi wañ a am no mais mais nañu nañu nañu arrêté dajaloo yi di di tàncu tàncu nii président Macky Sall lu muy def ni na ko arrêté lan tournée yi nga tournée yi muy def nii su fekkee da koy def sax mais na ko def ci loo xam ne nit ñi duñu duñu dajaloo demal depuis fuuta jógee fuuta ñëw ba ba ba Keur ñaata nit ñoo dajaloo da nga jàpp ni tournée yi moo indi cas yi mais du moom rek. mooy def tournée non non man wax man wax. ma ne. tournée yi est ce que jàppoo ni tey tournée yi. non xaaral ma ñëw. Mhm. est ce que gisoo yi nga xam ne ñu ngi koy def mais du moom rek moom moo koy def opposition tamit mi ngi tourné. non ba léegi ba léegi li may dama ne moom moo nekk ci kanam moo ñu jiite moom moo ne arrêté leen lii. Mhm. bu leen def lii mesure de barrière baa ngi ni te gisuñu ko ci moom. moom tey mag président mag ku neex ku mu nakkaar président Macky Sall suy jóg mbooloo bu koy topp du topp kenn est-ce que dégg nga baax fu muy waxee. maa lay dégg bu baax tey tournée bu mu def. Mhm. ak ñeneen opposition maanaam ñeneen ñoo xam ne dañoo jóg pour tibu tànk. Mhm. quelques nit ngay gis ñoom mais moom ñaata nit ñoo koy topp. day drainer foule moom. foule lay demee mais yow foule boobu su fekkee kaa am na. Mhm. ci moom la. parce que moom moo ëppale ñu muy dajale foule man def naa léegi-léegi tournée sama commune <laughs> mais man foule bu foule bu am ci président Macky Sall xalaat awma lool mais kon tey moom su fekkee moom moo jiitee mhm. moom moo ne nañuy am mesure de barrière mhm. ak ak kii am ak euh, ministre am mhm. te ñoom respecté wuñu ko defuñu ko kon lu am si Sénégal ñoom ñoo ko teg da nga jàpp ni ñoom buñ ko respecté wul askan wi duñ ko mën a respecté non déggoo li ma lépp loo jiite soo nee man bëgguma lii bëgguma lii am. Mhm. yow na ko na ko jëkke def. lan nga bëggaat ñu indiwaat mesures yi. mesure de barrière nañ ko respecté. ñu indiwaat ko wala. non wax ma la wax ma la dama ne nañuy respecté mesure de barrière. Mhm. laa wax. Mhm. mesure de barrière nañ ko respecté. tey. daldante bi. dal di di di kii di di jegewante. di joxante loxo di bañ a takk max. mais lu beneen erreur la. day masque dañ ko war a indiwaat ñu def ko par force léegi wala. non c' normal parce que. ah kaay moom mi ngi yëg de. non ñi vacciné wul moo bëri su fekkee tey nit ñi ñoom. Mhm. jox nañu explication bu baax pour affaire vaccin bi. Mhm. kon Sénégal ñëpp vacciné. mais joxuñu explication boo xam ne nit ñi dañu war dañu leen war a convaincre ci vaccination bi moo tax ni man mi nga xam ne mhm. bëgg naa sama bopp mhm. ak sama njaboot yi mhm. may jégalu ci kàddu bi ñeneen ni tamit bëgg nañ seen bopp mais dafa mel eh, eh, kii eh, ni ni kenn ku ne ak ni nga koy comprendre man ak sama njaboot yi amul kenn ku des ñun ñëpp vacciné ok bu ko bu donc su ma la déggee mooy ku nekk da nga war a def euh, ni yow ni mu ni nga def ci sama xalaat. waaw buñ ko defee da nga yàpp ni loolu mën na nekk saafara. ci sama xalaat. Mhm. parce que tey man su fekkee sax damay génn sama xel dina dal. Mhm. damay xam ne feebar bu am ni vaccin bi tax. Mhm. mu mun a ko mu mun a ko mu mun a ko dégager ci man soixante dix pour cent la quatre vingt pour cent am naa mhm. ko. ok mooy vaccin bi. Mhm. est ce que waaw ce que tey kon waruñu changer stratégie kon tey li nga xam ni moom moo jëm ci euh, dist yenn ci district yi xam nga dañ doon gis nii nit ñi ñoo dem ci euh, centre yi di dem di vacciner wu ji léegi est ce que tey mënuñu dem ci koñ yi ci quartier yi mën a fekk si askan wi ngir ñu mën a def vaccin bu fekkee bëgg nañ wàññi li nga xam ni moo jëm ci Covid bi itam. stratégie mais bi moo joxewul. Ah. communication bi ñoom ñoo joxul communication expliqué wu nit ñi am ñoo xam ne ñoo xam ne ay yàkkat lañ tam ñuy toog si réseaux sociaux di wax ne bu leen ko nangu bañ la nii lii nee rey nit wala nii ak lii moo am. Hmm. mais man su may def dara ma xam ne li may def lu baax la. Hmm. mu am ñu jóg pour yàqal ma. Hmm. damay taxaw tem expliqué nit ñi la am. état fight boobu la am. Mm-hmm. maanaam communication bi moo des. maanaam maanaam état moom jamono bu ñu toll ni mm-hmm. ci côté Covid. Mm-hmm. lépp fight la tout. ah bul wax tout état demoon na ba jël fi deuxième ci wàllum nu muy xeexee Covid 19. ba ñu defal ko fi raaya. non nga bul ne yooyu itam lépp baaxul. non su ma ne lépp fight la. waaw lu ñu war a communiquer ak population. balaa ngee ngee xalaat ci kaw. xalaatal si suuf ñi nga nekkal ñi nga nekkal soo leen di xalaatee expliquer leen mhm. ci boobaa mun nga nekk ci kaw xalaat ci kaw mais ñoom lu ñuy njëkk xalaat ci kaw la ñuy xalaat mhm. mais ñi nekk si suuf fi ñoo xam ne ñoo ñu yilif mhm. ñun la ñuy war a ñëw expliquer lañ lii ak lii ak lii gis nga am na li nga wax c'est très important tey covid baa ñu ne mais nañu dégager moo génnee ko jox nit ñi ñoo xam demal ci université ñaata médecin ñoo fa nekk wala ñoo xam ne am nañ seen diplôme. Mhm. boo yaay ni di traîner ci mbedd. Mhm. nañu dajale ñëpp pour six mois. Mhm. def ne formation un mois wala deux wala ñu ne leen dem leen dugg ci askan expliquer leen nit ñi lii ak lii ak lii moo am six mois laa la may Covid dootul amat fii. nit ñi ñu fekk askan ñu fekk ñu fekk si nit ñi expliquer leen. ci boobaa nit ñi dinañu comprendre. Mhm. lii ak lii baaxul. Mhm. mais yow nga wax nit ñi lii baaxul. Mhm. yow nga koy def. donc jot nañu xoolaat doxalin bi ci diggante état ak leader yi nga xam ni dañuy. xam nga mooy problème. waaw luy problème bi. président Macky Sall ak nguuram dañoo war a arrêter seen politique. suñu la joxee réew. dangay ngay arrêter politique liggéey. <laughs> da nga jàpp ni liggéey bi moo bëri ci président Macky Sall. non ah. non moo gën a bëri. ma ne politique bi quoi. politique bi moo gën a bëri seen liggéey. Hmm. maanaam lépp lu ñuy def rek dañuy calcul la ñuy def dañuy calculer. ah yow lu tax nga wax loolu. loolu moo am. foo ko teg loolu moo am. Hmm. parce que tey. Hmm. bi événement bi am. mu ne maa ngi soog a comprendre. ndakate bara di defar tali. nit ñi suur. nit ñi jóge ci coon xanaa moom xalaatuloon lool soit ñi koy conseil ñoo moo amul moo amul conseil baax dafa am benn leader bu nekkoon fii mhm. Khalifa Ababacar Sall mhm. bi ñu ko falee ci mairie dakaar mhm. dafa ñëw toog mu ne dañ maa fal pour ma defar Dakar gars yi ne ko ñun de yàgg nañ fii depuis temps Senghor ñii fii mu ne la lool soxloo ma ko da ngeen maa dañ maa fal. Mhm. pour ma defar Dakar. Mhm. képp ku may votel nga votel ma ku mhm. dul votel arrêtel mais man dinaa def ndakaar waa ndakaar toog nañu 40 ans kenn gisul sa buntu kër mais xalifasal dafa xëy rek dégager ñëpp nit ñi di yeew di gis seen buntu kër. kan mooy dem tey dakaar nga ne Khalifa Sall soo nee Khalifa Sall dañu leen a jaajëf parce que xam nga lan la teg. niñ ma war a voté voté nañ ma ba pare dama war a liggéey. kon da nga jàpp ni état dafa war a liggéey. dafa war a liggéey dafa war a arrêter muy def mu liggéey. ah ñoon ñoom ñi ngi liggéey de train express régional bi mi ngi fi BRT ak yeneen projet yi nga xam ne état teg na ko fi état bi kay mi ngi liggéey. <laughs> train bi depuis kañ la. laaj naa la ko. dañ ko war a inaugurer depuis quand. ah waaye Macky Sall nee na dinañ ko inaugurer lu yàggul dara. dinaa wax benn affaire. Mhm. président Macky Sall am na ambition. vision bi sori na. Mhm. mais finition yëpp zéro. ah yow sa waay yow <laughs> gis nga ni Macky Sall transformé jam ñaajo jam ñaajo léegi moom kenn waxatu ko. dëkk bi changé na bu dafa doon waxoon. Mhm. maa ngi toog ab ak Macky Sall ñiy dem Touba. sama vision bi la sàcc. bi président Abdoulaye Wade di toj pont mhm. Colobane mhm. ñëpp ñu ne dafa dof damaa jóg défendre ma ne ku ñeme toj ñeme defar ku ñeme toj ñeme defar kon nangul itam Macky Sall mi ngi defar Macky Sall mu ñuy defar mais finition yi ñoo baaxul hmm, xanaa ñi mu ko jox la pour ñu téye ko loolu erreur bi ci kan la ci moom la mais xam nga tamit njiit bu la joxee faaw nga confiance nga am ci moom. mais man su ma la joxee na ma la ne defaral man maa la jiite man la defaral ma lii defoo ko dama lay génnee defoo keneen pour askan yi xam ne exactement man li may def ni daf ma njor. <laughs> mais nga jël ay milliards jox ko ay étranger yi ñoom ñii ñi ñiy def naka su dul noonu nga leen di neexal bi bi seen contrat yi jeex nga yokkal leen. wala xaalis bi jeex nga dem uti xaalis joxlaat la encore. Mhm. pour pour lan. Macky Sall neen dëkk bi mi ngi émer émergent dëgg lañ nekk nag. fan la émerger ah. dëkk bi dafa émerger. ah mi ngi émerger de. gisoo pont waaw seen côté ñoom. <laughs> kon baax na seen côté bu ñu émerger. ok Ababacar Sadikh Ababacar Gassama moom la ñu dalal tey mooy coordonnateur CPJ euh, bu euh, région bu Sédhiou. région bu Sédhiou nag tey commune bu nekk ci Bemme la ñuy daal di waxtaanee dugg ci waxtaan gox bi tey lan nga ma mën a wax ci commune bu Bemme parce que xam nañ ni Bemme mu ngi ci euh, région bu Sédhiou lan nga ñu mën a wax ci euh, commune bu Bemme. avant tout d'abord maa ngi nuyu dix-huit villages yi. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi koy yeew. maa ngi lay nuy bu baax dix-huit villages la am. dix-huit villages moo fa nekk ci commune bi. Mhm. maa ngi nuy chef yi euh, chef de village fa nekk ak mm-hmm. imam yi mm-hmm. ak euh, ñoo xam ne ñoo yore daara ak euh, di nuy mm-hmm. jeunesse yi ak femmes yi ak waa diaspora après di nga leen nuyu suñuy non maa ngi ñëw di nga di nga leen maa ngi ñëw parce que xam nga su may wax su wax commune bi sama xol de de de de de de des fees ah yow kon bëgg nga commune bi de parce que aussi je me rappelle bi ñun ñu nekk xale ba tey xeer bu nekk ci commune bi ba léegi moo fa nekk ah loo bëgg a foofu yow. c'est la vie man année lañ ko sanc kon. commune bu gën a tardé ci Sénégal. Mhm. soo koy compter Bemme si la bokk te war nañu dépasser fii bu yàgg. ah Bemme Macky Sall dafa mel ni transformé na Sédhiou bu baax de Bemme xanaa bokk ci. kan Sédhiou. waa Macky Sall la transformé du Bemme. déet su ma nee Sédhiou kay. ci biir y y compris yeneen dëkk yi yëpp. noo déggoo li ma dama la ne. ci Sédhiou la yem. ah yeggul ci si suuf. non yeggul si Bemme. Bemme. Mhm. ban année lañ ko sanc ba pare Bemme. be Bemme année bu non <laughs> boobu mun ma la ko wax. Mhm. Euh, bon après dinaa xool euh, archive. ah yow nga bëgg jël mairie bi te xamoo ban année lañ ko sanc. si. Mhm. maintenant xam nga maa ci maa ci maa ci maa ci wax. Euh, su ma la su ma bëgg a xool. ati allé yi ñu doon kii noonu mais amul problème. gis ñoom Bemme. teen yi fa nekk ba tey teen yooyu ñëw nag ci biir Bemme. nit ñi teen yi la ñuy naanee ba tey teen ay teen jamono bu ñu toll ni courant amul bemme <laughs> yow xanaa da ngaa gëj bemme barke dëmb laa jógee bemme ñu ngi fay naan ndoxu teen ndox teen pour am ko sax problème la gëjoo bemme yow barke dëmb laa jógee bemme ndox pour naan ko problème la <laughs> ça yow li nga wax doy na waar de. moo tax ma ne la Macky Sall su ne moom defar na Sénégal moo tax da da affaire daf may daf may yéemu. ba léegi ñun teen ndox teen la ñuy naane. ok pour am ndox teen problème la jamono bu ñu toll ni faro suñu suñu yaay dañuy xëy fajar ba timis. Mhm. di jël ay euh, euh, kii ngos-ngos. Mhm. maanaam béy doole moo fa nekk ba tey. Mhm. courant amu fa. courant amul bemme. courant bemme la yem. ci dix huit villages yëpp ci bemme rek la bemme rek moo am courant. est-ce da nga boolem <laughs> poste de santé bu fa nekk dara baaxu ci pour faju problème la xanaa dëkk boobu leen lépp lañu war a defaraat du loolu moo tax ma jóg parce que dama xam ne il est temps ñun jeunes yi nañu jóg léegi balaa ngay pour mun a dëkk boobu xanaa amul maire maire boobu waaw ah. maire bu ñu fal toog na fi quatre ans demul goxam ah, quatre ans dañ bi ñu ko falee quatre ans la toog Ndakaar demul goxam mooy kan mooy maire Saloum Cissé Saloum Cissé mooy maire bi mooy maire bi quatre ans la toog Ndakaar demul goxam ah. lu tax ngeen fal ko kon xanaa ñu laajte population parce que population bu ñu koy fal dañoo amoon yaakaar ci moom parce que ñu ne mhm. de un cadre la mhm. ñaar am na xaalis est-ce que juumoo leen ba ngeen nee cadre la cadre rek dangeen jàpp ni cadre rek da ko war a ñëw jox dëkk bi mais c'est loolu moo tax loolu moo tax yow bokkoo ci woon yow bokkoo ci woon ci ñi ko ñi koy jox pour ñu koy jox rek ki gox bi non bokk ma ci hmm. parce que man dama xam ne hmm. su fekkee dafa dafa war a defar gox bi bu mu nekkoon ci topp bu mu nekkoon di liggéey hmm. bu mu nekkoon muy am bu mu nekkoon ci ci biir nguur la war a defar benn Saloum Cissé su ma la déggee mooy commune bu Bemmee moom tegu fa benn xeer sax tegu ko fa laajtale lan lañ fa teg déet yow laa koy laaj kay yow mi dëkk foofu. dara teguñu ko fa. école bu ñuy wax dañ ko clôturer temps. Mhm. la météo euh, léegi dañuy jël dañuy jël par benn. Mhm. léegi ci wàllum santé paj mhm. xam nga nit moo paj moom dafa am solo. léegi bu ñu xoolee ci wàllum santé. Bembey fan la toll ci wàllum santé. su ma la ne si wàllu santé zéro lañ ci toll. zéro. zéro pour cent lañuy ñuy toll ci wàllu faj. li gën a garaaw mhm. suñu poste de santé li fa nekk ñoom ñoo koy dajale lekk xaalis bi ah, ci ci naka ci naka très bien xam nga tey nit ñi mhm. suñu ñëwee dafa am loo xam ne loolu moo war a jógee ci budget mairie bi mhm. dem dugg ci poste de santé bi suñu ko deful mu am ay bon volonté yoo xam ne mhm. ñoom ñooy defar population yi pour jox leen garab mhm. wala yóbbu fa ay gasoil mhm. pour bañ a wax man pour ma bañ a wax sama bopp ñu mel ni comme man ñu bëri participer nañ ci mais saa bu ñu participer ba pare xaalis bi suñu ko suñu ko dajalee dañuy ne dañ koy yóbbu ci compte compte boobu un franc neew fa ba tey nii. ba tey compte amul dara. un franc neew fa. kon ci wàllum paj ci bemme. zéro dara amu fa. case de santé yi fa nekk béy yi ñoo fee fanaan. ah. case de santé. Mm -hmm. bu Baajukunda bu Farakunda bu Sibukuroto bu Jaaw bu Jaafaat béy yi ñoo fee fanaan c'est grave soo soo gaañee première soin munoo ko am benn. il faut nga dem ba fan am soog am premier soin. dem Marsassoum. ñaata kilomètres. vingt deux kilomètres. te rang la. kon ñun suñu maire lan la def ci commune bi. ci wàllum santé kon. ci wàllu santé laa lay wax. dara amu fa. dara demal ci ndox bi. waaw léegi nag ci wàllum ndox. ci wàllu ndox laa la wax. waaw. Jaafar am na forage. Bemme am na forage. Insa Kunda Jaaw am na forage. Simakunda am na forage Jitakunda am na forage juróom forage moo fa nekk. yooyu yëpp doxul. benn forage doxul te li gën a métti tamit waa diaspora ñi nekk diaspora waa jaaw lijante pour mun a defar seen forage bi mu ne ñoom tàggooñu ko ba ñu jënd seen matériel du signé pour affaire bi am ba léegi ñoom amuñu ndox pour am ndox problème la suñu dëkk ñun benn teen moo fa nekk mooy teen bu nekk suñu koñ koñ nit ñi ay bidon la ñuy root suñu rootee bidon teen bi dee woo su woo dañu koy dëpp su amee ndox ñu génne est-ce que autorités yi ñoom euh, fàttewuñ kon mbemme moo tax dama ne ñi fa nekk ñoom ñoo deful seen rôle xam nga tey suñu la falee mhm. ñu ne la yooyu yaa war a jiitee gox bi mhm. lu amul da nga war a dem ci nguur fëgg parce que lu fi nekk ñun ñëpp ko bokk lu nekk ci nguur ñëpp ko bokk ñi xeex yóbbu ko seen dëkk xanaa ñoom. kon moom maire bi xeexul yóbbu dëkkam. poosam ak ña ak ak nitam loolu lañu fi am te li gën a garaaw budget bemme budget bemme laa wax amul benn doom bemme ki ma toogal ni sax xamul budget bemme ñaata la. yow mi itam xamoo ko. non man xam xam naa ko parce que. ñaata la parce que man moom laay utu. ñaata la non du ma ko wax. ah déet budget bi kay sax budget budget bemme dama la ne ñi juddoo ci bemme sax xamuñu ko. man mii nga xam ne soxla naa premier jour bu may ñëwee dama ne dinaa la jox benn firinde benn firinde laa lay jox. dama ñëw ma ne jeunesse yi am ngeen un million huit cent quatre vingt mille francs pour seen nawetaan ñu ne ma c'est faux ma ne dem na xool ci biir budget bi ñu toog un naa ñu jox leen un million beneen année ñu jox leen un million huit cent mille te toog nañu. plus de trente ans kenn musul génne cinq cinq mille francs pour jox jeunesse yi. kon un million bi nga xam ni jagleel nañ ko jeunes yi ci mbirum nawetaan musuñu ko am. musuñu ko am bi ma ko wa bi ma ko déclaré la commencé di joxe est-ce que nga boo xam ne kon tey bu ñu toll ni jamono bu ñu toll ni mhm. jëlal sa téléphone nga woote képp koo xam ne yaa ñuy yeewu ci biir Bemme budget Bemme ñaata la. léegi moo tax tey yow mi nga xam ni xam nga budget bi Parcelles Assainies gii ñu jege fii ñoom seen budget ñaari milliards la ak lu topp yow mi nga xam ni tey da nga bëgg uti maire yi nga ne yow mënoo ñu jox budget bi wax ñu ko kay ñu ñu xam. non dama ne budget bi xam nga tey. waaw budget buy am ci commune bi. waaw droit la ñëpp xam ko. justement. droit la képp koo xam ne xale bu ndaw ma. même mhm. soo juddoo. am na ñuy déglu am na ñuy déglu itam. benn lañ dëkk bëgg xam. bien sûr. Mhm. am nañu droit pour xam ko. tey suñu toogee ba doom bemmee xamuñu ko mhm. man dama ne si sama programme suma ma ñëwee su mee voté sama budget non maa ngi ñëw non maa ngi ñëw dina maa ngi ñëw non maa ngi ñëw maa ngi ñëw man dama ne pour wax leen njiit dafa war a jub mhm. njiit da nga war a jub mhm. soo jubee lépp baax maanaam ñu ñu jiite ñoo jubul man su may voté sama budget dama ne am naa droit woo leen def leen ko plénière képp ku képp koo xam ne soxla nga xam si budget ñëwal toog mais su fekkee nekkoo conseil amoo droit wax mais ñëwal ñu voté budget bi sa kanam. Mm-hmm. ñu def suñu bilan sa kanam. Mm-hmm. nga gis bi ma ko waxee xam nga kan moom ma njëkkee woo le premier conseil du maire mu ne ma loolu musul am si commune bi ma ne ko maa koy njëkk def kon cela veut dire ñu jubudi ñoo fa nekk ñoo xam ne. Mm-hmm. soxloo ñu beme avancé li ñu soxla mooy. population bi nañu torox. ah yow nga ne diw cadre la. cadre la n'est-ce pas yow loolu nga wax maire bi cadre la. la woon cadre la woon. la woon waaw ba tey mën nañ ko jàppee. cadre la rek mais léegi du cadre la woon. léegi waaw kooku est-ce que tey. Mhm. Euh, est-ce que nekkul ni commune bi jëm kanam moo ko soxal. kan maire bi. maire bi su fekkee commune jëm si kanam moo ko du toog fi quatre ans bañ a dem ci commune du toog Dakar quatre ans bañ dem ci commune ku toog quatre ans ñu la falee nga toog quatre ans da nga bi mu gisee ne man wàcce naa sur le terrain mu commencé di dem te li gën a garaaw au ñu jàppale population bi hmm. déedéet ñoom dañuy nangu di ci population dugal ko seen poos <laughs> ah loolu nu mu demee <laughs> mais ay eh, ñu autorité yooyu kay ñoo war a jàppale nit ñi léegi yow bu ñooñu bu ñu ko demee di jël si poos askan wi nu muy demee na expliqué loolu moo am. ah loolu moo am nu mu amee xam nga tey budget bu ñoo sécurité pour pour ñan la. Mhm. pour population bi. justement ne ana budget bi fan lañ koy def budget bi fan lañ koy dugal daaw fond de fond de kii seel bu ñëwoon man maa ko annoncé ma ne monsieur le maire ana suñu dix neuf million bu ñëw daawat daawat jéegi la fond de seel bi vingt six millions la. demal laajte ana vingt su fekkee malgré dafa ñëw pour fay employé dëgg la d'accord naa mais suñu suñu suñu maire xam nga ñaata emploi moo fa nekk treize. te mënu leen fay. treize personnes ñoo fay liggéey. daf leen di fay. si vingt six millions pour treize personnes vingt six millions. lii des mu ne oto bu fa nekk xam nga ñaata lañ koy defaree. Mhm. neuf millions. oto boo xam ne quatre millions lañ koy génne. li war a defar oto bi yëpp. mais est-ce que li ngay wax yëpp am nga ci firnde këyit tee nga këyit nga xam ni yow li ngay wax nii yëpp mi ngi ci këyit mais xam nga tëb tamit di wax di accuser nit ki nii te amoo firnde loolu tamit xam nga tamit lool ay accusation mais man wax naa leen ko. Mhm. balaa ma koy wax. fii waxoon naa ko ba mu woote presse ma wax ko ma ne la su leen nakar ñi dem porte plainte ma. mais est-ce que li ngay wax am nga ci firnde yow. su ma amul firnde du ma ko wax. papier yaa mais man maa bëgg commune bi. lépp lu xew ci biir commune war naa ko xam loolu sama droit la pour ma xam tey dëmb lu ñu lu xew ci commune bi xam naa ko tey parce que sama droit la su ma ko xamul kon jarul ma jiite jarul ma bëgg jiite waa commune ñu ngi woon ci wàllum ndox nga ne Mbémé moom ndox moom forage dara tax déggoo li ma la wax forage amul ndox pour ñu naan problème la benn teen moo am suñu dëkk ñun bi ñuy naan mooy suñu suñu koñ dama ne su suñu rootee ba ba ba teen bi woo dañ cee dëpp pour ndox ñëwaat encore. kon yéen ak euh, nawet bi nu ngeen di def. Ah, ah nawet su ñëwee xanaa ñu am ndox teen yi fees. ndoxu ndoxu ndoxu taw bi ngeen di naan. ndox taw bi mooy dugal ci teen bi ñu naanaat ko. ah de xanaa dañ leen fàtte si mbirum euh, kii. mais loolu suñu njiiti ñoo ko def. parce que kon yow su ma la mooy maire bi def fa dara. defu fa dara maanaam déggoo li ma la wax. du moom du premier adjoint premier adjoint xam nga lan la am. toog ci taat garab bi di teg ataaya di naan. matin ba depuis suba ba ngoon xam nga li ñuy def ci mairie bi. Mhm. dañuy jënd ataaya toog ci taat ataaya bi euh, ki mairie bi di naan demal xool suñu mairie bi. suñu la ne bii mooy mairie bii mooy bii mooy mairie Bembey. soo fa duggee da ngay wocc yow fu ngeen liggéey munoo ko respecté du bale du dara su ñu bii mooy mairie bi soo fa duggee billaahi wallaahi taala man su ma duggee damay gaaw génn ci biir mairie ndax xet léegi jigéen ñi nag ñoom dans tout ça est-ce que ñu ngi leen di jàppale ndaw ñi du loolu moo tax ma jox dama ne mhm. dun jeunesse tey jamono bu ñu toll jeunesse yëpp manku mhm. nekk benn mhm. dafa doy mhm. dafa doy parce que ñun jeunesse yi ñoo war a jóg defar suñu commune du femmes du jigéen yi suñu man su bee wax suñu jigéen yi yeneen saa rongoñ day tuur euh, euh, soo soo soo xoolee balaa man mee juddu li am ci commune bi si jigéen yi mooy am dañuy xëy dem faro six heures du matin ba dix huit heures si ngoon. Mhm. ñu ñëw dem ci waañ ba. amuñu ndox bu ñuy defar. Mhm. amuñu ki leen di jàppale ci faro pour béy. Mhm. amuñu financement pour jàppale leen. DER sax déggu leen ko. daara. wala yéen DER da ngeen koy dégg rek. déggoo li ma la wax. dëbb laa wax dëbb. Macky Sall moo taxoon fii dafa ne bëggul gis benn jigéen buy dëbb. te am na foofu. mu mule yi fa dem man maa ko yóbbu. ñaar mu mule moo fa dem man maa ko yóbbu. Franku Ndasim Kuroto. Simacounda wo ñoom ñuy ñoom ñuy liñante seen bopp. waaw ah, kon ça euh, maire bi moom lan mooy njëriñam. du lool moo tax ma jóg. Ah, léegi yow lan nga war a indil askan bu bemme ngir tey ci jafe-jafe yu ñu nekk nii ngir nga soulager leen lan nga war a mun a teg seen loxo. li ma leen wax c'est clair dama ne. Mhm. ñëw naa bi ma ñëwee. Mhm. ak tey xaj na sama kër. Mhm. j'ai inversé quinze millions six cent quatre-vingt-dix mille francs dans ma commune ci sa poche la jóge ci si man mhm. dugg ci commune bi kenn mësul inversé un franc ci biir commune loo fa def yow tam quinze millions yi da nga ci wax la nii rek xanaa du wax ah lan nga fa def wax ñu lii nga def concrètement tey mhm. lépp loo xam dam koy commencé jullit la amul benn juma bu nekk ci benn teguma fa basan amul benn jàkka bu nekk ci bemme teguma fa basan amul benn village boo xam ne joxuma leen bool mhm. pour jàppale leen parce que pour am bool sax xeew problème la man chaque année damay jëndi lu mot mille litres carburant pour hôpital hôpital gasoil bu ma fa yóbbu mhm. ñoom ñoo ko jaay ñoom mairie bi ñoom ñoom xam nga kan moo ko recevoir mhm. le premier adjoint au maire moo ko recevoir. ñu jël gasoil bi gasoil bi dama leen koy jox. képp koo xam ne. Mhm. am na problème. Mhm. dem leen ngeen jëli ko. ngeen indi ko ngeen faj ko gratuit. Mhm. bu kenn fay gaz parce que su ñuy woo ambulance mille francs cinq mille francs ngay fay. dama ne cinq mille francs boobu pour nga fay ko problème la léegi dama ne arrêté leen di fay cinq mille man damay joxe gasoil ku feebar dem leen jël ko. gasoil bi même pas un mois ñu jeexal ko. ñoom mairie bi nga jox gasoil. même pas un mois ñu jeexal gasoil bi kenn xamul fu dugg. nuñ koy def nga ne dañ koy jaay. ndax suñ ko jaay lan lañ ko def. ah ça loolu moom doy na waar li ma wax c'est clair maa ñi ak firinde man maa indi le premier adjoint moo ko moo ko moo moo ko jël gasoil même pas un mois ñu woo ma ñu ne gasoil bi jeex na ana gasoil bi. Ah ay malade tamit day am ñu leen di yóbbu itam. non déggoo li ma dama la ne. kuy dem 5000 francs ngay fay dama ne 5000 francs boobu arrêté la est-ce nga boole. dégg naa man dama ne su ma ñëwee ci commune li may njëkk a def. mooy li may njëkk a def. Mhm. na ñëpp am courant même su fekkee di compétent maire moo ko war a def mais man maa war a jóg dem lijjante ko ba sama commune am courant. kon dëkk bi dafa lëndëm bu puso waddee sax du ngeen ko gis. non sax ñoo fa sa guddi fooy dem soo amul torche fooy dem est-ce nga boole. deuxième chose mooy. dinaa fexe tout ba poste de santé bi ñu xam ne fii poste de santé la case de santé yi fa nekk. ma valoriser leen ko pour ñu mun a jóg pour nit ñi mun a am première soin ci poste case de santé balaa ñuy dem ci poste de santé bi deuxième chose mooy. képp koo xam ne yaa ngi ci biir commune bi. sa biir douche sax dina am euh, kii euh, robinet parce cinq forages moo fa nekk raccordement mooy am pour forage yi mën a dugg ci biir kër raccordement yooyu maire moo war a jóg directement dem gis état parce que soo gisee ñu fal ko dafa am lu tax ñu fal ko dañu ko wóolu moo tax ñu jox ko réew bi euh, kii gox bi mhm. su fekkee wóoruñu ko duñ ko jox gox bi mais yooyu ñu jox la gox bi ngay toog nga ne il faut que lépp fekk si la te état mu ne la am maanaam yow buur bu ndaw mhm. lépp lu nga war a da nga war a jóg dem lijjante indil ko sa population non yow doo jóg état lu mu indil doo ko uti est-ce que kooku maire la man du ma def lool damay dem uti ñëw indi sama askan xamal leen yene yene ma fal pour ma dem uti su fekkee xeex moo koy am dinaa xeex pour ngeen am su fekkee xiiroo moo koy am dinaa ko def pour indi leen ko jigéen ñi nag lan nga leen jagleel parce que yaa ngi naan booy wax si jigéen ñi sax da ngay xaw a jooy mais jigéen ñooñu lan nga leen war a indil bis bu ma falee dootuñu dootuñu dem faro di di kii di di di jël ay ngos dinaa fexe ay tracteur am fa ñu koy wax bëri nañ de bu ma faloo duma ma def lii non dama ne dama ne mhm. man xanaa da nga am ay partenaire si dama am ay partenaires yoo xam ne maa ñu lëkkaloo ak ñoom pour ñu mën a jàppale projet bi am na am na huit onze yoo xam ne bëgg nañ ma jàppale accompagner ci biir commune bi ci affaire mbéy kon tey ñoom kenn ku ne suñu joxee tracteur ñaata tracteur la huit tracteur huit tracteur soo ko dugalee ci commune benn même pas un mois ñëpp ñëpp ñëpp soulagé est-ce que da nga baax li tey demal suñu faro yi ko xorom ñoo fa nekk ah, xorom bi daa mel ni mu ngi koy bëgg a jël na lépp mais am na koo xam ne waxtaanaak moom lii indi xorom dañ koy dagg xorom dootul amati ci commune bi ci côté àll tamit am naa koo xam ne waxtaan naa ak moom mhm. àll yaa ñu foofu kooku loo ko jox si suuf senegal doyu ko mu ne ma soxla naa suuf yëpp béy ko ngeen ñëw ngeen béy ma fay leen ma jënd seen en seen kii seen seen jiw bi maanaam li ngeen béy ma ma jëndi ko ba pare su ngeen di béy ma fay leen côté élevage noonu la dama ne benn amul benn lenn loo xam ne. Mhm. nit da koy teg bët. su la déggee daal man su ma pare su ma su ma jëlee commune bi. Mhm. dinaa def luuma entre Mbemme et Simakunda dina am luuma. Mhm. incha allah ci kattan yàlla ñi ma war a waxtaanal waxtaan na ak ñoom côté Gambie côté bi saaw ak yeneen communes yi ma ngànk pour ñu am luum dama ne su ma falee incha allah. maddi. fruits yi leneen yi am. dinaa fexe. ba doo kenn dootu ko sànni fa. léegi est-ce que askan wi bemme ñoom adhéré nañ à cent pour cent ci yow vision bi nga am pour foofu. xam kañ laa kañ laa kañ laa kañ laa lancé sama programme bientôt deux ans. léegi natt nga sa bopp chaque jour chaque jour. Mhm. tous les jours nit ñi ñu ngi liir te ku ko liir mu gis boppam. natt nga sa bopp. benn waaw. yàllaa moom mbir bi mais tey ragaluma ci kenn. mais yàllaay fal yàllaay fal nit. Mhm. te yàlla naa bokk ci ñu muy fal. parce que am naa yéene pour benn. kon maire bi nekk fii moom amul seen maire boobu amul yéene pour defar benn. amul benn yéene soo amoo yéene du def lool lu muy def ni du ko def. <laughs> léegi amee yéene. su <laughs> mhm. amee yéene pour. Mhm. tey ba ma jógee si souffrance bi. Mhm. dina ko def. mais lu ko intéressé mooy jamono bu ñu toll ni moom ñi ko ŋànk seen poos ak poosam ki ñi doon fal. nga nekk directeur général ci Maalantali ñi ñoo jël nag defar la PCA nga nangu ko <laughs> moo frère nañu xoolal suñu bopp bu baax yow yaa nekkoon directeur général ñu ne leen nekkoon directeur général PCA ngay jël nga nangu ko poste boobu maanaam jóge si kaw asamaan wàcc si si si si si si mbaam man dinaa ko nangu man. su ma nekkee directeur général suñu ma proposé sax ma nekk adjoint directeur ma bay yow nga nekk directeur général nga jógee fa ñu ne la léegi naan kaay kaay nga nekk PCA nga nangu poste boobu li fa nekk moo defu moo fa nekkul. kon kon Beme moom doxul bougé wul. demul dikkul problème rek fa nekk. Mhm. te incha allah ci kattan yàlla. Mhm. su ma yàlla fale billahi wax naa leen dans trois ans. Mhm. dara bougéwul si benn damay démissionné ak sama équipe bi ñoom ñëpp ñu ngi nii toog wax naa leen c'est clair et net parce que xam nga lu tax. Mhm. dama am confiance. ah sama confiance dama am confiance. Mhm. ñi ma àndal ak waa jaspora waa jaspora dañoo bëgg a inverser ci biir ci ci commune mais ki fa nekk da leen di xoj. ah bëgguñu ñoom ñu investir. non non da leen di xoj mais man tey su ma falee damay. parce que tey man su ma defee kii def keneen def keneen def avancement population bii la. mais yow doo def nangoo keneen def déggoo li ma la waa diaspora dañoo jënd seen matériel pour ñëw forage bu fa nekk pour ñu defar ko mu bañ waa jaaw deux ans amuñu ndox. ba léegi nii ba léegi forage baa ngi matériel yaa ngi foofu ñu jënd ko ay millions mu bañ lank mu ne du ko signé du ko defar loolu maa ngi koy lancé président Macky Sall na xam nan lay defee ak ak ak loolu parce que loolu c'est très grave jamono bu ñu toll. Mhm. koo xam ne nga xañale ndox. nit mooy ndox soo ko xañee ndox xañ nga ko lépp. élection yi am nga yaakaar ni dinañ ko amal ci atum euh, janvier laata ñuy tëj. am na am nga yaakaar ni dinañ ko. amal am na ba pare parce que li ñu war a def dañ koy ci ci ci fin mois bi terminé nañu lépp. nekkuma ci nekkuma ci commission bi mais ki nekk ci commission bi tout le temps maay waxtaan ak moom. élection bi kon ngeen dem am nga yaakaar. élection bi yaa ngi préparé dix millions pour génne ko mun a fay caution. mais su ma ko amul ma bàyyi man maa soxla pour dem. Mhm. ku soxla pour dem da ngay uti. ok déggoo li kon lépp yemb na ci yow. damay uti. Mhm. def ci. Mhm. te incha allah loolu am na ba pare. Ababacar Gassama maa ngi lay sant di la gërëm. merci euh, ma bàyyi la rek euh, jox la kàddu gu mujj gi nga tàggatoo ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon déglu ak askan wi ñuy déglu itam ci internet bi diaspora bi nga tudd ñàkku ni ñu ngi koy suivre askanu Beme itam ban kàddu nga leen mën a dëgtal ngir tàggatoo bi lan la. li may wax. di sant bu baax waa benn mhm. di sant population Sénégal nga baal ma yow est-ce que yow est-ce que nii ngay def nii attan nga mairie yow joxaguñ la sax mairie nga jooy non suma su ma xalaatee souffrance bu am sama commune moo may mett mhm. te ma nekk xale mhm. te ma toll di defar ma balaa bemme dafa am fu ma nekkoon dix-neuf communes moo fa nekkoon maa maa ko gérer dix-neuf communes maa ko géré pendant quatre ans ba ma fee jógee population bi yëpp jooy kon tey su ma amee benn commune boo xam ne ma gis ñuy souffrir. Mhm. day laal sama xol. dëgg mhm. loolu la. ñu bàyyi la nga mais di sant mhm. ñëpp. di gërëm ñëpp. di wax waa benn. élection locale bàyyi ñëw na ñëpp dem bindu. wax waa Sénégal na ñëpp bindu. te di wax président Macky Sall. na génnee. boppam ci élection locale bi du moo ko ah, moom moo am partie am war a jàppale ay nitam moo tax moo tax sànq dama ne <laughs> uh-huh. président moom dafa war a génnee ci affaire politique jamono mu continuer liggéeyam dañ ko far pour mu liggéey senegal élection locale su fekkee moom am na ay mbër na génne toog mu seetaan parce que soo amee mbër soo ko yóbbee ci làmb ji demal toog nga seetaan ko est-ce comprend baa fu may uh-huh. na ñëpp jóg affaire gox la population ki ñu sentir nañu yëkkat kooku teg ko mais bu kenn imposer nit ñi lii ak lii mooy am ci commune bi man di nuyoo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mhm. di wax pare naa. Mhm. pour jiite benn. ok te incha allah ci kattan yàlla. Mhm. yàlla su ma ko joxee. di nga ko jubbanti. dinaa ko teg ci raay. ok su neexee yàlla. di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax Aboubacar euh, gasama ci nu ñu nangulee invitation bi nga ñëw tey ñu waxtaanee ci li nga xam ne moom moo jëm ci commune bu Bemmey sa ambition yi nga xam ni tey mbëbët nga ko fa ak ñàkk juntuwaay yu bari yi nga xam ne nag askanu Bemmey ñu ngi koy euh, jooy ñu sant la gërëm la bu baax yi ba tey gërëm ñi nga xam ni ñoom ñoo di auditeurs yeeg auditrices yi gërëm internautes yi itam ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ci www.rewmi.com di gërëm itam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon euh, teewlu si émission bi ñu jox leen dig daje beneen dimanche dimanche ak beneen invité incha allahu rabbi